asalaamualeykum warahmatullahi wa barakatu bismillahi wa kafa suma salaatu alal mustafa sama mbokk sénégalais yi laay adressé sama doom ndey yi sama mbokk sénégalais yi maa ngi leen di ñaan ngir yàlla ak yenent bi di leen ñaan ñaan boo xamante ne jullit ak moroomam di leen wax jeunesse bi ak population bi ñun ñëpp ay jullit lañu football football sport la ñun Sénégal kenn xamewul Sénégal lu dul dëkk jàmm kenn xamewul Sénégal lu dul dëkk bu am teranga senegale yërmande lañ ko xame nit ku am yërmande yéen sama mbokk sénégalais yi gis nañu mars bi nga xamante ne am na diggante Guinée ak Sénégal yàlla def na Sénégal gañe na Guinée ci deux buts à zéro Sénégal dóor na Gambie dóor Cameroun dóor Guinée ngàcce ngàllaama yàlla na ngeen gën jëm kanam waaye li may ñaan sénégalais yi mooy population bi nañu bàyyi di saaga pël fuuta yi nañ bàyyi di humilier pël fuuta xamuñu lu dul liggéey ñu ñépp ay liggéeykat lañ man maa ngi seedal ni sunu boroom subhaanahu wa taala nit ku am yërmandi la sénégalais moo mën a jël li yor jox ko nit muñ sénégalais moo mun gis nit sonn mu jàppale ko ñu ànd dem sénégalais moo lay mun a xajal nga toog ngeen bokk senegale moo lay gis nga jóg sonn mu jàppale la kemtal laay kàttan limu mu mun su ngeen gisee pël fuute yi bari Sénégal jàmm ji am Sénégal moo tax ñu ñëw fa Sénégal gënul riis Nigéria Sénégal gënul riis Côte d'Ivoire mais jàmm ji am Sénégal yal na yàgg te sax moo tax pël féete yépp ñëw Sénégal kon nag bu yàlla defee Sénégal ak Guinée ñu joué Sénégal yi gagné Guinée xanaa nag victoire bi doy na xanaa loolu nag war naa tax ngeen yem ci victoire bi ngeen ñu gagné ñun génnewuñu manifesté wu li ngeen ñu gagné mais am na ci ay sénégalais am na ay boy yoo xamante ne ñu ngi ñëw di attaqué jàllo boutique yi. pël Fuuta yi di jaay boutique ñu leen di saaga di leen xas di leen ne yéen mun leen football di leen ne yéen du ngeen tus di leen ne yéen ndreyen yi di leen ne yéen pël Fuuta yi xamu leen dara mun leen football mais senegal pour l'instant moo mun Guinée loolu kenn weddiwu ko senegal du Guinée kese la mun Sénégal ñooy champion d'Afrique mais bu ñu fàtte ni amoon na ay jamono joo xamante ne ay ñoom Jules François Bocandé ay ñoom Seck Seck ñooñu ak ñu mel noonu defoon nañu lu ne pour gagner Coupe d'Afrique mënuñu ko woon gagner ñoom El Hadj ñoom Ari Camara ak ñu mel noonu ñafe nañu def nañu lu ne mënuñu woon jël coupe d'Afrique yàlla indi génération bu bees xale yu ndaw yàlla jox leen coupe d'Afrique waaye li may ñaan population sénégalais bu leen yàq image bi leen yàlla may sénégalais yërmande lañ leen xame sénégalais muñ ak yërëm la ak sarax la ak defal la lu ne loolu sénégalais mun na ko waaye bàyyi leen nag di saaga pël fuute pël fuute xamul lu dul jaay pël fuute xamul lu dul daan doolem pël fuute xamul lu dul lekk la euh, ñaxam bu ngeen gisee tey pël fuute yi amul benn gox booy dem ci senegal lu dul am na pël fuute bu fa dëkk du géejewaay du pikin du caaruy du du tiwaawan pël du ñàgg du du campement du kër Baay Faal amul benn gox wax ma même ci àll bi même Touba Pël Fuuta yi am nañ ay magasin fruits Touba Mbàkke dëkk sëñ Touba Pël Fuuta yi am nañu ay magasin Tiwaawoon dëkk imaam Mali maam maam maam Malik donc ñun ñu ngi fu ne Sénégal xam ngeen lu tax ndax jàmm jim fa jiñ fa am moo ñu ko fa teg bu ñu amuloon jàmm senegaal kon duñ fa toog ndax nit boo gisee nit daw dëkkam ñëw ci dëkk jàmbu parce que dafa am jàmm dóor ngeen fi Gàmbi mais ñu gisuñu ci TikTok walla ci Facebook ñuy taxaw di saaga walla di xas Gambien yi dóor ngeen fi Cameroun dëgg nañu journaliste bi nga xamante ne laajte na aline Cissé nekk yow danga dëgg nañu am nga six mois six mois retard de paiement mais Aliou Cissé dakaa tontu tontu boo xamante ne vidéo boobu ñu ngi koy tasaare ci àdduna bi ndax lan sénégalais yar ak teggin lañ leen xame ak yërmande waaye nag booy yi nga xamante ne day ñëw ci jàll boutique yi di leen saaga di leen xas loolu day tax pël Fuuta dañuy gën a ragal investir Sénégal tey commerçant boo gis Guinée ñaan naa am kër Sénégal wala am na fa kër waaye affaire bi bu demee nii nit ñi dañuy ragal te Sénégal jàmm lañ xamee Sénégal Sénégal yërmande lañ xamee Sénégal Sénégal dëkk teranga la dëkk jàmm la sénégalais ngay gis boo xamante ne dalay gis ne kaay ñu añ kaay ñu ndékki di la xajal kaay toog kaay lal fii kaay def lii waaye buñ naree defee nii daf ñu gën a tiital kon nag mbokk yi li ma leen di ñaan yéen sama doom nday julliti mbokk yi sénégalais bàyyi leen di abuser pël Fuuta yi tey pël Fuuta tamit bu ñu amoon li leen gënal dañuy toog seen dëkk bu ñu amoon li leen gënal dañuy toog seen dëkk amul lu gën a neex nit nga dund sa dëkk nekk fu ak jàmm di fa dund ak teranga waaye nag ñun dañuy muñ ndax xam nañu xëy na lii football la léegi mu jàll sénégalais xam nañu seen xol dangeen yaatu xol nit ñu baax ngeen bonu leen soxoru leen kon nag yàlla nañ yàlla dimbali allahumma amin